dali na jàmm ñoo ànd xëy yér yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gii di l'info réew mi quotidien le quotidien sud du quotidien ñu xëy dañu xibaar naan lu jëm ci wàllum dàq élection yi nga xam ne moom la ñuy ngawta ngawtee ci réew mi Amadou Ba mi candidat coalition Benno Bokk Yaakaar yëkkati na ci ay kàddu Amadou Ba nee na tey àndul ëllëg ci ñu dàq élection yi te dara xiwul ci réew mi ba ñuy dàq élection yi te moom Amadou Ba nee na sax jàppul ne élection yi dañu koy dàq ndax dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel jël nañu ko ba pare amul lenn loo xam ne lu ko mën a randal la bu passé loolee tamit Amadou Ba nee na dara xiwul ci mi xalaatul ñu dàq élection yi te li war jamono ji mooy ñu wàccoo ak li nga xam ne mooy calendrier républicain bi yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bi daan nay wax ne mbooleem loo xam ne matukaay la ngir ñu organiser ay élection jël nañu matukaay yooyee ba pare jamono ji maanaam li ci des mooy ñu dem ci élection yi Thierno Alassane Sall ci biir journal bi muy tuumal ñi nga xam ne ñooy waa PDS ak ñi nga xam ne ñooy waa APR Thierno Alassane Sall li mu jàpp mooy APR ak PDS jamono ji ñoom ñaar dañuy dil yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu yegge kàddu yu Amadou Ba Amadou Ba nee na ñi ëpp ci as askanu Sénégal jamono ji li ñu bëgg mooy dem ci élection présidentielle yéenekaay gi de l'info Thierno Alassane Sall nee na Macky Sall muy Amadou Ba di ñi nga xam ne ñuy waa PDS ji dañoo bëgg yàq deru ñi nga xam ne ñuy waa conseil constitutionnel moo tax ñuy taxaw ne dañuy taxawal ab commission d'enquête parlementaire waaye nag loolu lépp li ci aju ay calcul politique la te nag mbir mu ñaaw a ñaaw la Thierno Alassane Sall ma ngi ñaawlu bu baax baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci république bi ba pare di teg ay tiila moom Thierno daan nay wax ni mille milliards kenn ubbiwu ci enquête parlementaire am nay rapport am nay rapport cour des comptes am nay rapport Petrotim yoo xam ne ba léegi gars yi waxuguñu ci yéen kaay gi di vox populi ñu xëy fekk fa colonel Abdou Aziz Ndaw muy défendre juge bi nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Coulibaly Abdou Aziz Ndaw daan wax ne Cheikh Tidiane Coulibaly juge la boo xam ne maanaam ku am ngor ku jub la ku jàmbaar la ku man liggéeyam la yéen kaay gi di leen fu ñu xëy fekk fa Mary Teuw Niane Mary Teuw Niane nee lu jëm jamono ji nekk ci nguur gi maanaam pouvoir bi conseil constitutionnel la ñu mere ndax ñi nekk ci nguur gi jàpp ñu woon ne conseil ak candidature Cheikh Tidiane Dièye waaye nag ginnaaw bi ko waa conseil constitutionnel validé ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi maanaam di tëbaka dal ñu ne déeta waaye conseil constitutionnel daal di éliminer candidature Karim Wade te loolee du bëgg-bëgg nguur nguur gi moom Mary Teuw Niane yokk sanay ginnaaw nag bi ñu validé candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao loolee nga xam ne maanaam bu ñu demee ci élection mbir ma dafay séparé ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolee nag la muy firnde la mooy nag défaite boo xam ne bu leer la ci ki nga xam ne mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar lii bokk na ci li tax ñi nga xam ne ñuy waa nguur gi mere waa ko ndax moom la ñu gàll waa conseil constitutionnel ay tuuma la yoo xam ne tuuma yu rëy la te dafa war a leer yéene kaay gi nee na lu jëm ci tuuma yi nga xam ne waa PDS tuumal nañu ko waa conseil constitutionnel ci lu jëm ci wàllum guerre commission des lois bu assemblée nationale convoqué nañu ko altine ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la bu ñu si tegee ñaari fan danañu commencé li nga xam ne mooy séance plénière ko fast track journal nee na ñi nga xam ne ñoo jóg ji ngir bëgg yàq élection yi ñooñee fan la ñu ko teg yéene kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa docteur Assou Ndiaye di jàngalekat ci lu jëm ci waajee ci communication bi nga xam ne Sonko def na ko fan yii nga xam ne moom la ñu génn ci vidéo moom jàngalekat bi ci lu jëm ci wàllum science politique nee na vidéo boobee Ousmane Sonko réussir na communication bi nga xam ne moom la doon def ndax communication ba good final la mu ca wax ne Bassirou Diomaye Faye dafa war a a kaay gi di Walf Fadjri Mame Boye na bu ne président bi daf koy koy waajee ndax dafa jàpp ne pouvoir yi nga xam ne moom la ñuy dénk sunu njiitu réew yi bëri genn xeetu bëri goo xam ne maanaam dañu ko war a wàññi moo tax mam buy jaawoo nee na bu ñu ko dénkee réew mi doole ji nga xam ne moom la président bi am doole jooje du ko am maanaam daf koy wàññi yéene gi du l'observateur xëy di xibaar naan ñu Aminata Touré fekki na Ousmane Sonko yéene kaay gi di Tambour quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum double nationalité journal bi xëy samp ay laaj nee na Amadou di Rose Wardini di Khalifa Sall di Aliou Diabou Pire

bu rëy moo am ci banque basique bi nekk ci Parcelles Assainies journal bi nee lu toll ci 469 yoo xam ne moom la fa njaaj moom la fa sàcce yéene gi nag nee na Ousmane Kane chef d'agence bi jàpp nañu ko Aïssatou Sène mi caissière bi jàpp nañu ko Mariama Gueye mi responsable des opérations jàpp nañu ko Ndeye Khady Diémbe moom tim jàpp nañu ko ñii ñëpp waa dikk moo leen teg loxo yéene gi de la Soleil ak L'As xëy duñu xibaar nañu jamono 91 milliards yéen kaay gi de Dakar Presse xëy duñu xibaar mbir mu garaaw mbir mu doy waar moo xam ne moo naroon a xew ci diwaanu Touba journal bi nee na dafa am benn xale bu góor boo xam ne fukki at ak juróom benn la am benn waaye la ñu bett mu naroon koo rend yéen kaay gi di Vox Populi nee na xale bi ñu naroon a rendi ab mbàkke-mbàkke la daaru minam la mbir mi xewee ki ko naroon a rende ab marchand ambulant la ñaar fukki at juróom-ñaar la am teg nañu ko loxo waaye bi ñu ko laajee nee na mbir mi xamut lan moo ko ko bëggoon a def loo mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, revue de presse ak Abdou Khadre Seck. moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali point net ay xibaar yu wóor ay journaliste yu mën seen liggéey.